nee na sëñ Aliou Faye sëñ Saliou Faye nee na moom it jàmbaar dëgg la sëñ bi nee na sëñ Sall sëñ bi nee na bég na si yow bu baax a baax nee na dafa gis sa yëngu nee na ni la mbir mi jarale nee na bi nga seexee ba tey li la mbir mi jaral nee na fu ne danga fay dem nee na di la gërëmal say mbokk ndax ñoom ay nit ñu baax lañu nee na macha allah nee na fi nga jógee nee na dem foofu nee na sob fekk fa ustaas ba nee na ustaas bi yaatal la te nag bu nekkoon nit koo xam ne nit ku bon la nee na day ñëw jéem di dërante ak yow mbagg te mu ne loolu yëpp defu ko mu ne mu nangu topp sa kaw nee na ngeen ànd nee na di liggéey sëriñ mën a yoyit tey bay sal mun a yoyit gàcci ngalam mun a yoyit koor kakk nga yoyit waaw nee na la sëñ bi waxoon waaja rek nee na ko man daal góor kakk mooy ànd ak man